ah ci nga dëkk di wax leneen moom ci nga dëkk. <laughs> jërëjëf mbokki téléspectateurs yi békk si nañu bu baax a baax ama ci contentement immense plaisir ak fierté bu profonde dajeeti ak yéen seen biir émission les ambianceurs ambianceurs 16 heures bu jotee tim bi day teel alaaji Papa Ndiaye Thiou l'international Adji Mass Gueye l'animatrice de la nouvelle génération ñu fas yéene leen bégal waaye saa su nekk dañuy dalal ay ndaanaan des grosses pointures de la musique sénégalaise tey nag ki ñu ci dalal il n'est plus à présenter di ngeen ko découvrir ci kanam mu ñëw gunge ñu tey ci musique ndax nag tey bés la boo xamante dañ ko jagleel musique tey fête de la musique juin àdduna yëpp di màggal li nga xamante ni moom du a a baax bégal leen bu baax laataa ñëw Papa Ndiaye du ma ko nuyu Adjumass laay nuyu looloo ma neex. <laughs> yow lu la neex laa sentir man loo bëgg laa bëgg. man Adjumass laa bëgg nuyu ba pare Adjumass Gueye. <laughs> waaw damay piri ju ba ko leeru. <laughs> jaajëfal chers amis euh, patriote. Euh, oui yaay patriote yan. je me suis un peu trompé. non dama topp politique bi ba fi mu ne dama yàqu. léegi da ngaa bokk ci patriote yi. si Paa Maguette sa background kañ nga koy non chers amis téléspectateurs de la 7TV sur les ambianceurs je salue tout le monde. Mm. aujourd'hui comme c'est la fête de la musique. Euh, oui, bonne fête de la musique à tous les musiciens musiciennes. di jaajëfal tey invité bi nga xam te dañ koy invité dañoo bokk ci wàllum nday. macha mm-hmm. allah eh, nee naa ko tubaarikàlla ambianceur ku ne ñëw na fi waaye tey ki fi ñëw nee naa ko immense plaisir la pétri de valeur pétri de talent. ci noonu yi tamit dañ maa ambassadrice la tey luñ la fal waaw kooku duñ joxe kii bi nan ñëw ci sponsor pare ma wax parce que dañ maa yóbbu noonu tey macha allah tey dama fier mais démb point de presse bi nu mu mujjee point de presse bi dina kenn ay ballaay wax man chaque jour ci ay ballaay wax <laughs> xaaral ma ni koy ziar bu baax baax yaay Ndiaye Papa Ndiaye maa ngi lay ziar maa ngi leen nuyu Mara di nuyu fête de la musique fête de la musique maa ngi lay nuyu yaay kontaan naa ci yow di wax tey jarul wax ji du bari ndax ki nga xamante ni ay way bu jaar yoon yaru teey maan bu fekkee loolu rek moo tax ñu dégg artiste ma xam ne du ngeen ko dégg waaye bu dee ay way rek ak yaru toog sa kër mooy tax ñu dégg artiste di ngeen ko dégg fu ne ndax moo ko def tey na dal na xam na fi mu jëm te teewul li mu war am yépp mi ngi koy am maa li jabu sekk lay wuyoo ñu jox leen ko ci fête de la musique tey ngeen ni fête de la musique ba gonjox waaw waaw <laughs> ma eh, gonjox barki sëñ Tuubaa dégg naa dëgg xam nga boo déggee tur bi ñu ne Malick teg ci Jabu Seck xel daal di dem ci Jabu Seck laa Saint-Louis kon xam nga ne daal doon ay way tey ndar day yëngu xel day dem ci panaal xel day dem ci ndar xel day dem ci tàkkusaanu ndar tey ndar dina yëngu waaye Saint-Louis na yëngu ndar ak Saint-Louis benn la ndar da koy dem <laughs> ndar ak Saint-Louis ah Paris mooy France ah Diourbel mooy njaareem. Ah, waa Ndar ak waa Saint-Louis daal. léegi wax dëgg yàlla tey moom mooy déggu ma. liminateur boisson. waaw très bien loolu baax na léegi Pape Maguette ak euh, Pape mi ñu àndal ci régie bi on va enchaîner les plus belles ñu daal dalal suñu invité Malick balaa ngeen nuyoo dama bëgg ñu dugg ci benn morceau d'abord parce que déjà on a accusé du retard te dama bëgg ñu bëggal. man de morceau bi njëkk a nuyoo neex na ma. parce que tey bisu bisu musique la donc wax naa ko sànq sama njël benn kàddu c'est une grosse pointure de la musique sénégalaise un grand monsieur joxal ma kii yëfi paap kii aja salaamaaleykum maaleykum salaam donc Mara nuyu Adji Mass nuyu Pape Ndiaye li ci des ci wàllu lu ñu indaale dafa bari bu ñu doxalee tuuti jeexal morceau bi ni ko Mara waxee ñu dugg ci nuyoo kon nag dama bëgg ñëpp di reetaan dama bëgg ñëpp di reetaan morceau bi mi ngi tudd reetaan ku ci am sa chéri booy dee ko reetaan may may morceau bi nag sama benn xarit ah na Alioune moom borom xaas di ko may chérim Khady Sarr soxna Khady depuis les États-Unis kon nag gars yi aca ñu doxal

bu lisee ngeen da nga may yan àdduna di ko reetaan reetaan moom moo lay xool Seydina Ali Kati Sarr Camara lañu dénk Seydina Alioune borom xaaso taalibe sëñ Mamour Insa Ngor mani chéri boo wéreta Seydina Ali no taalibe si Barhama baa ngi noonu taalibe Mamour Insa la Adji Sarr Camara reetaan ñu ma ne yaay suñu chéri boy El Hadj May seede ma yow jigéen yow dëgg dëgg kenn mësula jam naa ma Ñas baa ngi noonu Seex Maamur Isaa la doyloo Kati Saar Kamara suñu chéri booy dundal dundal waaw waaw di yow dëgg dëgg masu leen jam naa Alin nitu yàlla baa la doyloo yow la ñu dégg kaati soxna umi gala sey sey yaay sëñ Fallo yi sa maam kati saar kamara ma ñu dénk Seydina Alino reetaanal may xool suñu juri booy Mariano Pokunta Gaza Negam Absa Jaragi no no ya yu Hadim Baram Italiano Pokunta Gaza Negam Absa Jaragi no no ya yu Hadim Alino aye Laura bin binetna Ligota ne Leboye bi jaro gu yee fi jaar kaay ci suuf le rendez-vous VIP VIP VIP fi daje Aliou nañ dem aigu nañ dem aigu ah aigu ayeey ndaw rabin bi na li ko tax a neex lébu yee fi jaar jaay borom italiano bu kunta njaasaan la jëm ab sa jaara ngi noonu yaayu xaadim dëkkul lébu yi lañu ne 7TV mi ngi biir Wakaam li ko tax neex lébu yee fi jaar waay rendez-vous des VIP dama bëgg ñuy seetaan sax di décortiquer musique El Hadj Mbaye nga lan daawda ngi ñëw wala. macha allah daawda ñu koy am. daawda Pape dina ko géré mi ngi baax de mi ngi baax. alors loolu dina fekk si après Pape da ngay fexe ñu gën koo dégg rek. une une très belle introduction. une très belle entrée en matière. Euh, en tout cas dalal nañu ndaanaan waaye gëm naa ne itam musiciens yi ko wër ay ndaanaan lañu. il est très bien entouré allah euh, Malick Diabou nuyoo bi am na solo xam naa ne tey téléspectateurs yi seetaan ñu ngi bëgg parce que tey du musique du doon musique bu folklore mais day dekk musique bu comme ni nga ko waxee musique bu VIP Adja Malick <laughs> nuyoo ak sénégalais yi. salaamaaleykum waa Sénégal. Uh-huh. tey dama kontaan. Uh-huh. Mara Mara dama la wax nela la. 7TV uh-huh. bi nga ma indi tey. 7TV dafa nekk euh, euh, kër goo xamante ne dèjà dafa ma neex. dèjà mais dafa am leneen lu ci tegu mooy seen plateau bii ñi fi nekk daje fi ku ci nekk am na loo xamante ne ci man da ko tekk ci man. damay njëkkee ci sama sama sœur Adji Mass. yaayu Mouhamed. kii. damay faral di wax naan. Euh, sama mag bu jigéen mm. da day laam mooy suñu taaw mooy suñu yaay mooy suñu xol mooy suñu lépp toog naa ay at bi mu fi jógeek léegi sama xol mënta neex ma wéet sama dëkkuwaay mm. ndax kooku day lépp ci man di ñaan suñu borom suufu daaru woyof ci kaw waaye Adji Mass la jee gis ndax dama nekk euh, dama nekk moom ba 22h am fu ma doon dem ma ne ko maa ngi dem de ndax damay dem benn anniversaire mu ne ma Adji Mass lay xaar dafa war a ñëw ak jëkkëram kon nag su ma ko fekkee fii ah ajimaas mënumaa tàmbalee fenn te duma jaax ci yow ndax li nga tekk ci man bari na ci samay bët yaayu Mouhamed waaw loolu tamit daal di ñëw nekk leneen papa njaay sama nijaay la. waaw sama nijaay la. waaw ndax yow da nekk sama kilifa ñaari yoon. ci métier bi may def da nga ci nekk sama kilifa. te métier bi damay faral di naan. bépp ndaw bu ci ne. Mhm. fonkal sa kilifa sa kilifa mooy ki ci jiitu def ci lu ne bala ngay ñëw. dëgg yow sama kilifa nga. ñaari yow nekk sama nijaay. ndax Modou fay Mousli Couture. Mhm. nga xamante ni yére wolof moom bu ko Malick Diabou Seck solo. Mhm. bu kenn laajte ko ko ñëw Modou fayee ko ñëw. ba ngeen di ànd xëy na Ndiaye waaye Eumadé ak Ahmed. ak Modou Faye seen benn néeg ñaari tali suñu koñ ñoo ko doon bokk. bu ñu daan dem joué ji moo du Modou moo moom Mousli Couture moo ñu daan àll Obasanjo ñu dem kili bi dellu si kon yow sama nijaay nga ñaari yoon ba pare nag di ko rafetal aar waaye Mara cofeel la ñu boole dama ko bëgg ndax dama am ci moom cofeel mm-hmm. man su ma gisee ndaw ñu bokk yoon bokk génération mm-hmm. ngay def lu rafet am fulla am fayda ci li ngay def dama lay bëgg yow looloo tax looloo looloo waral suñu ànd. yow da ngaa baax loolu koy bàyyi nuyu waa Sénégal sa jigéen nday petaaw mi ngi lay yóbbante nuyoo. sama ah kooku sama boo xam ne day. bu mu génn ndax ma clip boobu moom damay ñaan régie ko yor ëpp naa def ëpp naa def clip boobu maa ngi day pétaw fii ci monument bii man su ma xoolee monument boobu démb ak tey leneen la leneen la maa ngi nuyu nag étoile du nord ñi nga xamante ni ëpp na ay dix ans man ak ñoom c'est famille ah. c'est famille ñii moom awma seen fay mhm. tey moom waxtaan wi du bari wax Papa Ndiaye dañuy bu ah, wax ji naree bari yow bu wax ji naree bari damay bañ nga def ma ni ma defoon démb donc Mali nañ demaat ci beneen morceau parce que après dama bëgg bu morceau bi jeexee waaw non day ñëw man loolu laa demoon kii yow xam nga ne ñoo bokk lu ñuy yëg ah. après ñu waxtaan ci musique acca Pape jox ko jox ko retour clavier boobu waaw waaw loolu waaw loolu mu xaaral mu jox la jaagam moom mu jël sa jaag fi waaw Mara oh voilà morceau bii nag moo waral coow li vidéo mi ngi ñëw daañ ci waxtaan ndax vidéo bi nag ah njaay xam nga dañoo bëgg lu baax dañoo dem ay dëkk ak dëkk dëkk parce que ni bëggal sénégalais morceau bi mi ngi sa xarit borom Apple pap pap pap ak UPUD yi moo ko liggéey moo koy gërëm di ko sant waaye bàyyi ci ko laa ci way bàyyi ci ko mooy ki nga xamante ni yu yàññ yi may def kooku dinaa wax ci moom après yu yàññ yi may def moo koy def sama xarit bi nga xamante ni ànd bi yàgg na bàyyi ci ko nag moom euh, moom lañ jëm ci morso bu xarit xarit uh-huh. ayca kon ñu teewlu yóbbaale naa ci nag képp kuy sama xarit uh-huh. su ma daan ñëw sa kër satalaa nga may teeroo bay daawul jóg di gëstul say àndandoo bi ma siti ba sit xam naa ni yow la li ma wóor ba wóor ma daal mooy nii laa meew sa kër sa talaa nga may teeroo bàyyi daawul jóg di naan ma gëstul say àndandoo bi ma siti basit xam naa ni la li ma wóor ba wóor ma daal metti ni am ak lu mu tàng tàng masu loo bu ñu jëmbati tamoon jëm lool ci réew mi ñu ne mara dama nga ca kanam bàyyi ba xam jakawa nasaxal dal yaayu Muhammad ja dem na bàyyi Yunus yaayu mbeen ma ñuy joo medun xam bëgg naa la man di xam naa bëgg naa la waaw biig sax fëgg naa la ci ne la ñu ne la waaw waaw tey dañu leen di bégteel dëgg dëgg dëgg musique tey duñu ko ambiance duñu folklore dañ koy teg ci taarix ci gàmm waxtaane ko li ma ci metti rek yàq nga sama émission wu xarit bi Adjimass Gueye nga xam ne moom xol bi dafa woyof te rafet waroon naa ni nag euh, euh, bëriki démb rek ci téléphone maag yow nga may seereel digganteem ak sa mag jooju nga xamante ni mu ngi koy jooy ba tey te noppee mhm. yàlla yàlla yërëm ko te jéggal ko ay bàkkaaram yépp mhm. Papa Ndiaye tey ndaanaan bi moo ni toll mhm. bis bi ko coof il faut ñu indi Mm-hmm. respecté li mi def mais mm-hmm. Malick man fi ma jëm mooy sooy way damay gis ku bëgg li muy def mm-hmm. sensation boobu euh, Ndiaye gannaaw ba ñu sant yàlla gërëm suñuy waajur def nañu ci ñun nag jikko joo xamante ni wala éducation boo xamante ni foo ah. war waaw caaxaan waru dëgg la waaw dañoo dugg ci musique ndax musique man day sekk tey bërki demoo Ndiaye laa jóge ca école ba ca Ndar école Cité Ñax jàppale ndongo daara yi. maa ngi bëgg décembre su ma demaatee ndar dem hôpitalu ndar jàppale leen kon musique man caaxaanewu hmm. boo dëkk ci dëkk yaa koy defar. man ci musique laa am ngir bépp teraanga bu may def ma di ci jaar. Hmm. xanaa xooloo Ndiaye. dëgg la. ni nga mel dong yaay sama seetu. dëgg la yaay sama seetu. waaw man nag du du du du du dama koy jeter ay fleurs à doo tox ba dajeek moom lu bari. déedéet buñ ko woowul doo ko fa gis. dëgg la mi ngi ci ruxam rek gëm li mu gëm. mais buy way da ngay da ngay yëg ni Youssou Ndour ngi ci baat bi. Mm-hmm. waaye Abdou Guité ngi ci. Ah, may ma dégg nuroo nag. waaw may dégg. ah Malick Diabou Seck Abdou Guité. xam nga waaw. non man bëgg naa xam parce que gis naa nii rek pour man dañoo bokk fu ñu yaroo wala. Mm-hmm. mais bëgg naa xam. lu waral nga bokkee ak mais da ngaa tudd sax nag euh, da nga ni boo tuddee waykat bu toog. waaw ñu ne ko gis naa ci yow Youssou Ndour. waaw muy koo xamante ni mooy suñu kilifa ñu ñëpp mm-hmm. ñu ne déeta waaye ñu tudd ci Abdou Guité Seck. ndaanaan nga. xam nga woy woy wayli bi nag mu ngi noonu Seck Guité law bi latti sax. yaa ñàkk ñaan. ah déet kooku yàlla dafa def nii dama ko koy léeg-léeg ma toog ba ci yàgg déglu déglu déglu ko ba ci yàgg woo ko téléphone ne ko ko koo dàqul way ci réew mi dàqulaa way. déedéet. yàlla may na la loo xamante ni. Hmm. man yëm na ma. man de mosuma dégg mu naan kaay leen ñu nàmpalante ci ay wayam. moom sama ñi nàmpalante sax xam na am na ñu bëgg nàmp ñoo xamante ni nàmpalante dina leen. non nàmp rek laa bëgg waaye nag ay wayam moom. <laughs> non c'est waxee mooy seen timbre vocal. non je comprends nag man day sama rakk papa. ma koy nuyu de passage kon sa sama papa la. très bien sama papa la di nit ku baax koo xamante ni nag yemul ci loolu. 2003 hmm. biñ ma jëlee Ndar indi ma Dakar moom lañ ma uufal. Euh, ma jàng fa baa bari na lu bari loo xamante ni nag fa laa ko xamee. Hmm. kon nag ma koy ma koy rendre hommage bu baax a baax a baax te xam ni vraiment. Hmm. dëgg yàlla nit la ko musique sénégalaise soxla ma koy ñaanal yoonam leer lool ci musique hmm. vraiment. dëgg bi bariwul nag moo xam naa damay tëgg. waaw waaw ñu fa la xamante. Alioune fa la xamante voilà. aji ah, benn question am na solo bu baax a baax. soir laa laaj de. Malick <clears throat> nga xam ne solo 10 ans de carrière nee ko tey c'est très normal parce que góorgóor rek ngay doon. Mm-hmm. dëgg neexul nday laam fu ne féetanam fu faas koo xamante ne nii wax ngeen yow la mujjee waxam àdduna ñëpp seede ko. mu xëy dem yàlla moo ko dogal yàlla na yàlla yërëm jéggal ko nit ku baax la woon waaye ñu gis sa plus de dizaine d'années boo xamante ni def nga de loo ñu mën a wax ci démb euh, ndaxte fekke nga musique gu démb euh, au moins. Mm-hmm. ak musique gu tey jii. lan mooy différence il de la génération intermédiaire quoi. waaw kay mm-hmm. différence bi bëgg naa nga daal di ciy ñëw ak léegi musique bi lan nan nga ko gisee. wayu bon yi xew. ah man de waxuma ko. mbaa filmé ngeen ci ko wax Ndiaye la. <laughs> moom kilifa la wax c'est c'est important de. parce que li ñuy dégg nii ci musique ak ah. li ñuy dégg tey ci musique c'est différent. maanaam baal cof bi ak wayu bon yi ngay dégg. waaw waaw waaw waaw xam nga. Ah. yàlla dafa dogal ni ku nekk ak li lay daaneel. ak ku nekk li la tax a jug. man damay déglu bërkaati démb kër ga may déglu ñoom Ismaïla Lo. déglu ñoom euh, Youssou Ndour déglu ñoom Thione Seck fi ñu toog ci boolu añ bi rek comme léeg-léeg ñu def yi fi géwal rek ma ni ana non soxna ana neexul ba neexul ñii su ma leen di déglu damay am envie nekkaat gën a nekk waykat. ndeysaan parce que ñooñu représenté nañ musique tey sax fête la musique la la ñu war a waxtaanee. ma leen di mhm. rendre hommage ñoom ñoom ñooñu Pape Ndiaye euh, ak yow mii. Mhm. bu ñu ñëwee ci wàllum fecc culture de manière générale. Mm-hmm. maanaam nañuy def li méngoog jamono mais nañuy bàyyi xel ni dayam repère. Mm-hmm. ci ñi nga xamante ni dañ koo téye parce que li ngeen ci doon am démb sax amatuñ ko ci tey. dëgg parce que qualité bee wàññeeku. qualité bee wàññeeku tuuti. mais gars yi ñu ngi góor góorgóorlu ma leen di ñaan ñu gën a rek xam ni musique bi du pour fii rek. Mm-hmm. dañ ko war a yóbbu. exporté ko exporté ko Mara loolu mooy suñu objectif. parce que tey musique culture day représenter réew ni sport di représenter réew. dëgg la ni leneen di représenter réew xam nga. Mm-hmm. donc euh, diplomatie mën na jaar à travers la culture. dëgg la musique mën na ma waxtaanloo ak benn chinois. Mm-hmm. wala benn japonais buy làq li muy wax te xaw ma li muy wax. mais à travers la musique on communique en fait. am na sax am na xam nga loo mais loolu moo am. loolu moo am kon nag daal man maa ngi ñaan suñu borom. li ngay wax yëpp ci man dafa fekk ni xëy na man sama objectif mooy musique daal bëgg naa mu nekk entreprise boo xamante ni. Mhm. dinaa ci représenter Sénégal. taxawal ci sama réew. te tàmbali nañ ko ndax. bët bi démb la ci xam nga position bu nice de. Mhm. di sol lu yiw. Mhm. di nga wax waxi nit. di def yëfu nit. woyam am parole en plus mu ànd ak dal en plus li ma gën a marqué ci moom mooy dafa am facilité. woy wi du ci sonn dama mos dégg Alla Diop mu ne woy boo ñaqee sax. mënoo nee na ku waykat warul warul warul warul ñàkk maanaam way way kese maara nit lu mën du ci sonn parce que xam na fa muy jaar dégg mu wax ko nee na way warul nit lu mën du ci sonn parce que xam na fa muy jaar Alioune Mbaye Nder day sol costume takk cravate fecc di way ba pare fecc ba daaneel te doo ko gis mu def benn affaire bu la déranger ñaata nga fi gis hmm. benn tëggkat nga fi gis clavis bi nee na ak yow <laughs> waaw mën naa taxaw fii ci benn karo kay di fecc te du ko génn macha allah ci seet yu bëri macha macha allah loo xam ne tey mhm. bien dañuy demaat ci ci beneen morceau tey fête de la musique la tey waxtu wi mi ngi ñuy mi ngi ñuy dab euh, Malick dañuy demaat ci beneen morceau booy rendre omage nag mënuñu ci bañ a boole suñu maam Diabou Seck. Ah, xam naa ne yow xamuloo ko de yow ma yow xam nga Diabou. ah fekkante nañ ci jamono waaye. bi may gimmi bi may gimmi fekk na mu dem. fekk na mu dem mais ñàkkul ne am na dara loo mos a dégg. ci ay woyam moom la mook samay papa ñoo bokk ndey ak am na dara loo jàpp ci ay woyam. Oh, damay bañ a toog ci télé di. xuus ah, trop la woon. ah oui ah, jabu si ah, dégg naa ci daal mbaari ma dégg na ah. man dama ko jaawale ak kii nu mu ma nii. non laa bëgg laaj lu mu bokk ak Penda Mbaye. mi mi toog mi toog ca ndar kii jabarama nag est-ce moo ñu jiitu ndar ñun ñoo bokk ndar rek ma ma ma nuyu waa ndar nag aussi parce que ku génn sa kër am nga am foo jógee ah? ah. maa ngi nuyu waa ndar bu baax bopp bu laman mbay nee na ma bopp nee na ma gépp ñu Malick Malick ci li nga duggoon sànq fanaal boobu ci fanaal ci ci Mali Fayat waa nag jabu nag jabu benn nab rek nga duggoon moom ci morso bi euh, damay dégg dégg Abdou bi te am na lu mu ci jël mhm. ci yaay may ma morival yaay ay oh, da may sëy ak ngi bi moore nga ca waalo voilà quelque chose comme ça bon je veux pas je veux pas xam nga ñun nag effectivement war na ci man luy gën a gën ma traditionnel ah. traditionnel bi di creuser waat ñàng du wees dem di jàngi di puiser waat ci ah. mag ñi loolu dafa war ndaanaan yépp te loolu ba tey insha allahu rabi yéexul parce que Henri Gaber laa ci waxtaanal ñu war a harmoniser mhm. li fi jabu bàyyi li ko ci moderne waaw parce am na ñuy dégg jabu jabu jabu seek laa ba ci man jaawale ceebu de man mii dégg rek laa ci am su ma juumul ay archive rem bariwul ci laa ko jaawaleel man te te c'était une grande chanteuse boo xamante ni tey boo nee Diabou Seck la Saint-Louisienne rek génération yëpp ko xam man man am na yu ma jot a gëstu ci moom ci ay ci ci ci net bi mos naa def benn fàttaliku ci moom ak yooyu mais buñ tëggaatee ay mbiram yéen ñi nga xamante ne yéen a yor héritage am dina am solo Malick ñu dem ci beneen morceau comme morso bi nag day wax ci violence conjugale violence conjugale mooy euh, xeetu ñaawteef yi am ci biir kër yi. gis nga violence bi ñuy wax ci mbedd bi. Hmm. ni ñu tàmbali ci néeg bi. dëgg la conjugal mooy lan ci olof. ñaari way dencante. jëkkër ak jabar te bii li ci doy waar mooy seen doom. mooy fekke seen oh. Pape Ndiaye nga jàpp sa soxna bon ñun nag xam nga le rendez-vous des VIP au moment bu ñuy way c'est en chantant qu'on communique avec le public. bu ma duggee léegi di nga kon ñuy dóor seen jabar daal nañ ko arrêté. jaay euh, doom ji moo ko ne doom ji daa fekkee papaam di dóor yaay te doom ji am na doole bu mu fayuloo yaayam dóor papaam waaye lislaam tere na képp kuy ñàkk te miin sa waay bi doom ji dafa confus dafa bëgg génn kër gi bàyyi fi yaayam ndax lii muy fekke te mënu koo faj metti na waaye Matteew ñu koy def nii xanaa su ma wutee dañ koy rey benn mu ne loolu mënul nekk téemaa fayul sama yaay dóor sama papa kenn nanguwul loolu dégg nga am nga soxna mës nga histoire ak moom naturellement. waaw werante rek mu xaw ma kii ma profité waale ci dem sama kër dem kër fanaan. mais sa loxo mosul. déedéet man damay profité ci yooyu sama gel yi boo xuloo rek ma dem sama kër gel yi. ba xam ngeen ñoo ngi ci spectacle bi. waaw fii ci biir. ñun le rendez mus ku xuloo man parce damay profité. mais Mara am nga soxna ah ngeen a werante <laughs> nga ko dóor nga ko bëgg naa ko de. s'il te plaît voilà non mais c'est vrai man mës na ma daal. ah mës nga dal sa jabar man. mës na ma daal. mais loolu mënul mënul ñàkk ci sëy. erreur lay doon ñu ngi eh, na ñàkk. du mës na la daal. mës na ma daal il faut honnête na daal man da ngay profité doo je vais pas être là devant les caméras pour mës na ma daal. mës na ma daal. aja man ak yow mos nañ ko def. nañu demander excuse à toutes les femmes. waaw waaw. ñu ngi leen di jégalu loolu dul war ñu ngi leen di soxna Anna jégal maanaam sa soxna. man ci ay def bêtise laa dëkk eh, doom ji nee na papa bu dee yow yaay ki ma nar a ramu. su ma faatoo bul ma yóbbu aljana yaay nar fi sëy nii ba sëy fi yàlla buum fi ba ñeneen ñu naqar di rey amoo waay xaru araam na gis li lay rey dawoo ko moom la oh. yaay doom ji nee na papa ji su ma dëkkeeg yow nii ci kër gi yoonu lislaam dal di may war yaay nar fi sëy nii ba sëy fi yàlla wax ñeneen ñu naqar di rey amoo waay xaru araam gis ni lay rey dawoo ko moom baram baaw bu fi baax ñeneen ñu naqar di rey Maadu dama war a génn kër gi xel xalaatul wàcc bi yaay xaru araam gis li lay rey dawoo ko moom bëgg a gërëm rek woon ne morso rendez-vous demain incha allah bu soobee yàlla waaw c'est le rendez-vous des VIP bu ñuy contacter jàpp ko ci 77 513 43 67. moom la ñuy def rendez-vous des VIP. Euh, Matonge lañ doon joué ñu ngi waaj a reprendre parce que waxtaan bi laa bëggoon bu ñu xuusee ñu yegg ca waaye comme temps bi daf ñu xët daañu dellusi koo gis muy liggéey am na ñu ko jàppale. dama def yoon bu sore doon def liggéey bu diis bu ma attanul. ay kilifa jàppale ma. ngeen baal ma dina gaaw dama ciy dem rek rapidement. ku mel ni Pape Souleymane Diouf le gendarme caserne Samba Diéry Diallo Koumba sama jigéen borom ADS Luxury Shop Maodo Malick Mbaye DG Anamo dama ci bëggoon gën a taxaw waaye temps bee xat Alioune Pala ministère de la culture jërëjëf sama rak Adja Dieye borom Ami Yaay design jërëjëf jàpp